Barthélemy Dias euh, ñàkkati na kenn ci ña doon liggéey ca mairie ba ñu koy woy capitaine Touré euh, capitaine Touré nag euh, démissionné na bokk na ci ñi doon li nga xam ne mooy sécurité Barthélemy Dias photo baag noonu ñu la koy wan kon boog bàyyi Assane Mesra. waa lii dafa warutoon a am. démissionné. non am gi laataa démissionné da ko wërtoon a jël. ayca bisimilah développé. moo Guy Marius Sagna ñu dee jëloon ngir politique. Mhm. moo tax it politique moo tax lii daal di dakk mhm. politique moo taxoon mu mu jël leen sa mairie ba waaye soxlawu leen woon jëlu leen noonu ngir leen da leen a jëloon ngir politique. Hmm. politique it moo taxaat ñu xàjjaloo il faut que yi xam loolu. Hmm. Barthélémy Dias ñi mu jëloon ñi nga xam ne moo leen jël daf leen a jëloon ngir politique. politique moo taxaat léegi mu xàjjaloo ak ñoom. Hmm. ndax kii léegi nee na candidat la su ma juumut. kan la capitaine mii. xam nga nag fu muy jëlee parrainage candidat la. waaw candidat la la waxoon ni moom la mu ngi ci woon. waaw loolu nag mënoo koo nekk ba pare continuer nekk ca lee en tout cas la politique moo leen xaajale xam nga Guy Marius Sagna <laughs> na am déet mais bu démissionné wu dina démissionné ngi nekk fee. Eh, si kii bi assemblée ah. cause bi xam nga cause bi kay mooy politique leen boole woon politique leen xaajale ñoom ñëpp. d'accord. Mhm. Alaaji. Mm-hmm. Euh, démissionné na moom capitaine Touré euh, ca mairie bu dakaar bokk na ci ñi yoroon sécurité bu Bart. Mm-hmm. Mhm. waa xam nga démission moom beneen saa yi day nekk loo xam ni lu personnel la bu fekkente ni waxu argumenté wu ñu waxuñu lenn loo xamante ni bi moo sabab pour nga xuus ci day xaw a doy waar. Mhm. parce que bu fekkante ni bi da nga dégg rek ne démissionné na. ñu yem foofu. Assane nee na politique la. waaw Assane moom lu fu ko neex deraat. xam <laughs> la <laughs> politique yi taxoon mu jël leen ndax liñ leen président Macky Sall Macky Sall da koo dàq léegi Guy Marius Sagna ñu dàq ko mu dimbali leen jël leen léegi nag àndatuñoo ak moom mu bàyyi leen lu tax nga may tudd maa wut tudd daa war a bàyyi alaaf mu wax nga wax ngay ngay pourtant yàgg naa ko wax ne ko sànq bi nga defee lu rafet nee naa ko Assane li wax nangam nee woo da waxoo dara waaye fii waru mu faa dugg nga xam nga boo fa duggee mu ne Assane moom bu ko neexee na xuus waroo wax da nga maa war a baax ndax man sama xuus bi da nga ko war a rafetlu mais boo neexee mu am lu mu waxee xuus gi day yàqu. non yow yaa def lu ñëw nga rafetlu. non non nga ko waxee moom bu ci waxee man. sama xuus gi bàyyi ko mu ñëw. non dafa yàq sama xuus gi xuus gi li ma yàq nii li ma wax dafa am solo dafa am solo mais ni mu ko def nii day yàq sama xuus gi te xuus gi ku ko jàngat xam ne xuus gi dëgg ku jàngat xam nga ni li ma wax ni. xuus na kàddu gi de bàyyi ko mu wax li ma wax dafa am solo. dafa am solo ah, d'accord waaye léegi wax mais ku la wax amul solo. nëru ma woon a tudd xañ na mën mën ngaa bàyyi lekk. waaw dama kan moo la wax li nga wax amul solo. non yow yaa ne ko xuus gi déedéet dama ko xuus gi Assane ko mun la Assane moom bu ko neexee na xuus waaye man du ma xuus loolu mooy li may wax li <laughs> loolu mooy li may wax man léeru ma mais loolu mooy démocratie plateau bi yow waaye ni mu ni mu waxee ku dégg man li ma <laughs> <laughs> damay wax lu ma neex rek topp sama bakkan te demeewul noonu man li may wax xam-xam la li ngay def nga war a bàyyi li ngay def nii du yoon de war naa yàlla du yoon foofu waruma fa woon a dugg sama tur waruma fa woon a dugg sama tur waru fa woon a dugg. <laughs> li wax mooy war ni moom day ma fa dugalee rek leeral ni ma li ma wax wóoruma. pourtant Assane de. pourtant Assane <laughs> pourtant nag Assane. ci wax dimbali naa nee naa la est-ce nga li ko da nga maa saraxe. saraxe. <laughs> nee naa la yow arrêté émission bi. nee naa la est-ce que xam nga lu causé démission nga ni ma politique. waaw waaw waaw bu jeexee. bu ma waxee ba pare mu jeex. bu alaas di wax wara ne ko pourtant Assane de xuus na. <laughs> pourtant Assane de xuus na da nga koo paas. déedéet dama ne ko Assane nee jox moom pour mu rendi ma <laughs> mais naa fët fët yi ba rëcc de. bu soobee yàlla du ma ko nangu de. Ah. laaj ko rek moom mu wax li mu bëgg a wax. te nga génne ma ci. da ma ci génne de. lii nag mooy dictateur. Ah, yow yow Assane saa du wax. man ni naa wax saa ñëwal fi nga doon kii. waaw nga il faut yàlla nga xaar ba xam li ko motiver lan la. waaw xam nga waaw. abota vision moom bu nit ki ne bu nee tekki nag ki yom te déggagoo dara loo xamante ne bii wax naa lu motiver mbir yi euh, pour nga mën a wax ci mbir yi euh, day xaw a doy waar waaw xam nga nag Assane moom ndaanaan la parce que moom boo ko déggee moom deera <laughs> boobu ah, politique moom xuus na moom donc. dara di xew moom. Assane nag léeg-léeg mu anticiper mbir. fekk ne mën na euh, firndeel loolu. xam nga bu la bàyyi woon nga àgg fii. mais mën na mën na mën na firndeel ne loolu la. mën na ko firndeel léeg mais léeg-léeg tamit aussi tamit mu passé à côté mais Assane moom bu bopp bi dalee ci miir bi amul problème <laughs> day jóg fëggatu rek kaaloo waat <laughs> ñëwaat toog <laughs> moo tax engagement yi mën a jël moom doo ko mën a jël moo tax ñu bu ñu toogee ci plateau bi maanaam léeg-léeg ñu def exploit bu rëy. Ah. waaye léeg-léeg bu ñu supp jaleñee <laughs> du garaaw parce que asat booy jiite supp jaleñ nga <laughs> bu ñu amee ndam lu la léeg-léeg bu xuus moo xam ni dañuy xëy suba mu nekk ndam loo xamante ne bi senegal gépp dañ naan non solution waxoon nañ ko maanaam asat bu ñu jël bi day jóg faxasu rek daan <laughs> waaye bu asat dërbeeloo day jóg faxasu rek dem yoonam bu ñu xëyee bàyyi ko jël bi saa yi amee ndam nag ñu bokk ko ñun nag war nañoo gore tuuti. mu daal ak alaaji toujours ma dimbali parce que man dimbali naa bu ñu wax nee naa ko Assane est-ce que xam nga <laughs> <laughs> ko ndax ki mu ne politique la léegi nag ëllëg bu capitaine Touré génnee <laughs> mën naa wax lu confirmé waxu Assane bu boobaa ñu am ndam mu ne waxoon naa la ko fii laa la ko waxee man samay wax moom du daj daal de bët daa bett nag waaye moom moom mënu maa wax lu du dëgg moom saa yoo xam dañ waaye bu dërbeeloo <laughs> day jóg rek faxasu rek daal di toog. wallaahi ah euh, ko déglu daal ba xam. waaw lu sabab yëf yi daal. incha allah foofu daal ngay génne nga soog cee mën a gis jox say xalaat. d'accord ah, waaye nag am na en tout cas mais am nañ beneen version bi. xam nga man bon tax naa fi te gis nga. Hmm. parce que nag noonu leeral na moom beneen côté bi ñu déglu nag après. mbaaru xibaar ba daa wadd dafa mel ni mu lu woote de. en tout cas daal lu ko mën a coucher moom li ma leen wax du deñ waaw. muy noonu euh, jërëjëf euh, sama réalisateur bi nga xam ne mooy des fois da ciy day participer. laal na sax li Assane njëkkee woon maanaam comme dafa engagé wu ci politique. waaw te dafa dafa dafa dafa bëgg a dem ci beneen kii. Hmm. Euh, mayetu ko muy nekk ci yooyu quoi. ko muy nekk na nag bu génnee dina amaat yeneen explication. mais daal yeneen si mën hmm? a si am. déet yow bàyyil noonu rek message. mooy dama wax day politique. lépp <laughs> waxoon na ko de. Ah. waaw ñu déglu rek après. waaw ah, ñu déglu rek léegi nag euh, alaaji